waaw man de je pense que ne c'était prévisible peut-être que li am samedi daf ko gën daf ko acté rek mais ñëpp xamoon nañ ne entre taxawu ak Pastef quand même c'était la fin du compagnonnage depuis la sortie de Barthélémy Diaz mais Barthélémy Diaz génnee def sorteem bi yëkkati ay kàddu wax ko Ousmane Sonko wax li nga xam ne moom moo jëm ci tontu Ousmane Sonko ci li mu ne bi ñuy dem di di waxtaani wax moom yëg na ko moom mu dug moom mu génn euh, weddi Ousmane Sonko weddi loolu moom également mu répliquer ak les mots yi mu utiliser de mots mhm. très forts à l'endroit d'Ousmane Sonko laa ne woon c'est fini dem nañu juste après ci benn conférence de presse Khalifa Sall a voulu sauver les meubles wax rafetal mais terewul li ci toppaat mooy manifestation bi nga xam ne doon na am fii ci Ndakaaru mhm. nga gis ne keroog dañoo yuuxu foofu ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak taxawu Dakar Khalifa entre autres loolu beneen bi nga xam ne mooy acte deuxième acte bi mooy le dialogue national bi nga xam ne xalifa Sall dem na wuy ji ci dialogue bi loolu waa Pastef ak ñi ànd ak yeewi askan wi ànduñu ci jàpp nañ ne acte de trahison la naam du ñu ànd présidentiel ku nekk day demal boppam mais bokkul ak dialoguer wala waxtaan ak le parti au pouvoir surtout ci contexte bi ñu nekkoon. Mm-hmm. beneen acte bi encore mooy li am ca mairie de Dakar. ñu dindi Abass Fall parce que loolu également du woon yoon il faut que ki nga xam ne mooy nekk euh, euh, ki nga xam ne mooy nekk deuxième adjoint au maire day nekk peut-être dañu respecter la parité plutôt mmh, mmh. respecter wuñu la parité bi verdict bi génnee ñu wax leen nañu ko changé y avait quelqu'un de Pastef boo xam ne postulé ñu bàyyi ko fa jëluñu ko bi ñu dindee Abass dindi ko moom en même temps nanguwuñ ko jël jël keneen koo xamante ne euh, ci taxawu Dakar la bu ëllëgee taxaw Dakar foofu également di troisième acte bu posé wu boo xam ne wane. est-ce que du fayantoo Fatou. parce que parce que wax nga ci kaaw euh, euh, Dakar. maa ngi dégg sax biram bi biram naan bañ leen ko defee mairie Dakar dañoo dañoo resté digne. c'est ça muñ ko. donc ñoom jarul ñu fi donc la. donc dafay day mel ni. loolu la ñuy claque boobu la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy tontu en en quelque sorte la amoon foofu. mooy troisième acte bi quatrième acte mooy li am bërki démb à l'Assemblée nationale donc euh, ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu politique observateur yëpp xamoon nañu ne dinañu yegg foo xamante ne division dafay am cest dire que le groupe si bu fekkoon am nañu doxal nañu au la de leur divergence dem ci politique ak xarañte politique taire leur divergence dañuy bàyyi ce groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi même su fekkee ne ànduñu sax parce que loolu daf leen di gën a jëmbal à l'Assemblée nationale mhm. maintenant nag mbir yi dafay dem ba dépasser sax ñoom parfois li nga xam ne mooy politique parce que dafa dem ba nekk affaire dafa égo lay doon entre cest à que ci entre homme politique wala entre parti politique yi comme taxawu ak parce que dem nañu ba y a une haine viscérale Mouhamed ñu wax ko wala ñu bañ ko wax entre les deux partis loolu moom moo am ndax actes yi nga xam ne moom moo fi jot a jaar et pour tontu ko mooy li am aujourd'hui démb keroog samedi boog ba ki démb euh, ci assemblée nationale ba mu indi ñu perdre aujourd'hui ay postes clés ci assemblée nationale loolu nag mm. du au profit au profit de la coalition Benno Bokk Yaakaar lay nekk tey Benno Bokk Yaakaar au profit am lay nekk ñu mm-hmm. dem ci élection présidentielle war a wàcc élection présidentielle fii ak daanaka ñeenti weer ñu gis ne yeewu askan bi nga xamante ne moom bokk na ci coalition bu représentative à l' assemblée nationale ànd ko ak wàllu aujourd'hui xaajaloo am na ci seen biir loolu politiquement baaxul ci ñaari parti yëpp baaxul ci coalition bi nga xam ne dañ ko bokk ak ñeneen et c'est Benno qui gagne et c'est Benno qui gagne malheureusement mais non mm. euh, comme ni ko ñii ñëpp waxee il fallait loolu tout le monde voyait venir mm. que li fi jot am ci li ma jot expliqué yëpp ñoom ñooñu mënuñu woon continuer peut-être compagnonnage boo xamante ne bu yàgg ba li ñu doon wax ne ci principe la peut-être parti yi doon ànd ci ay idéologie mais tey dañu yegg ci politique foo xamante ne Mouhamed chacun roule pour ses propres intérêts li ma jàpp ne yow àndoo ci ak man damay jàpp ne yow da ko contre ak man ce qui fait que ne même bu ñu àndee commencement bi dem ñaata coalition lañu fi gisoon ci élection locale yi ñaata coalition ci élection législative yi ñoo xamante ne à la fin aar Sénégal bi ñu paree élection législative ku nekk da nga dem naam rafetal nañu ko. mais tey boo creusé mais tàqalikoo bi. waaw rafet parce que ñaari pàcc yi tey ci assemblée yàlla mën na def ñu retrouver wu. deuxième mais mais man moi je me euh, dis ku ci nekk benn pàcc. c'est la question bu ngeen ñaawalee. bu ngeen ñaawalee seen relation. mën ngeen retrouver waat demain si demain. kenn ci parti yooyu à se dem deuxième tour. Ah, oh nooy def. nan nan lay demee. c'est ça c'est-à-dire aujourd'hui également. Ouais. si fekkee ne beneen parti la boo xamante ne tey farul ci pouvoir dafa far ci opposition bu demee deuxième tour. nan la taxaw di def ak moom wala aujourd'hui nan la Pastef di def ak moom loolu également lu jar a xalaat la parce que élection la yoo xamante ne ñëpp ñoo yem présentement mm. pour la première fois dans l'histoire politique du dañuy tabb <laughs> donc bu ñuy tabb euh, ñun ñëpp ñun ñoo am ay chance égale parce que dañuy dem wuti donc kenn xamul kan moo nekk aujourd'hui favori léegi bu boobaa bu ñu demee deuxième tour fekk ne yéen yéen a ngi xiiroo ko ŋaayoo kenn dem nan la ko keneen ki di soutenir mais nag en politique il ne faut jamais dire jamais nos hommes politiques oui loo xam te tey ëllëg bu amoon tamit dinañu <laughs> wax a wax ba génn ca ba xëy na àndaat mais la manière bi ñu ko <laughs> defee quand même euh. ko woon yuy wane exemple que ne nos hommes politiques d'habitude seen ànd yi ay ànd yoo xam ne c'est tout simplement basé sur sur des intérêts un divorce Ibrahima euh, euh, buy kii euh, buy may Benno mu mu am taxawa gën a am taxawaay ci assemblée nationale qui profite à Benno je je je voulais dire déjà naka nga jàngatee kaaw taxaw ak ak Yewwi parce que quand diverse bi <laughs> faatu Fatou wax na rappelé nañu ay actes yu am solo acte un ba acte quatre donc ça veut que ne si ça continue on, temps vers une présidentielle est-ce que mbir yi du gën a ñaaw ni ko Bamba waxee ñaaw na ba pare mën naa gën a ñaaw mosuñoo ànd semaine bi ñu créé Yewwi Askan moo fay toog ci nga ne yeeweeguñ seen bopp yeewee ko guñu ba yeewi si ba yeewi askan bi yeewee ko guñu ba yeewi askan wi démb nag laay soog a jàpp ne ñoom ñu ngi soog a yeewee ku ñoom. Ah, yeewee ku nañ fu mu ne nii. waaw ñoom ñoom laa wax ne ñoom. ah ñoom seen xam nga dañuy yeewi askan wi. ba yeewi ah. dañuy soog a yeewee dégg naa la. lalu ko woon. démb la seen biir lu xam bootee baayam yeewee biñ koy sos. Hmm. dañ koo créé ci période bi nga xam ne affaire Adji Sarr am na. c'était pas une coalition politique. Non. coalition faj mer la woon Ousmane Sonko avait besoin de l'opposition en l'occurrence Khalifa Sall ak ñi mu àndal Khalifa Sall avait besoin de Ousmane Sonko pour mën a gën a xeex ak Macky Sall ay chemin la dañoo dugalante seen biir Khalifa xam na ne boo àndee ak Ousmane Sonko ak Pastef danañ gën a teg pression président Macky Sall pour moom sa candidature Ousmane Sonko xam ne boo àndee ak Khalifa ak ñu créé Yewwi xeex bi muy xeex ak Adji saar ak état bi dana si gën a am ndam ku ci ne da nga amul sa objectif individuel bien clair précis et net ñoom ñaar kenn ci ñoom faussiwul sa principe Khalifa principe am moo nekkoon naa def lu ba bokk Ousmane son principe am moo nekkoon naa def lu Touba xeex combat Adji Sarr bi ba ñu bañ ma cee taqal pour ma génn ceeg ndam pour loolu nag dafa am ay combat politique yoo xamante ne il fallait que ñoom ñaar ñu séq ko bokk ko ànd ci mais du tey du lu bees askan wi taxu leen woon jóg seen intérêt personnel individuel ma leen taxoon jóg premier questeur assemblée national premier adjoint questeur hmm. ñaari yooyu ñoom ñooy contrôler les finance de l' assemblée et le budget de l' assemblée nationale s'élève à de soixante milliards c' est la première fois yuy soog président euh, euh, euh, questeur assemblée nekk un ministre parce que boo demee ba benn moment boo xam ne Yewwi dañoo demoon ba mujj bi les finances de l' assemblée nationale waa bennoo yi ko jiite woon te nekkoon Daouda Dia bi nekkoon le caissier de l' assemblée mais da doon nekk nii rek figurant la woon parce que amatu ci woon benn mais mis parce que contrôle bi maa amoon doole mais tey jii seen xeex bi ñu xeex seen biir perte na leen trois post mooy léegi le premier caissier c' est l' assemblée euh, bennoo la deuxième caissier bennoo la ak yeneen vice président yoo xam ne pratiquement li nekkoon ci yeew yëpp dafa ñëw si benn Bokk Yaakaar léegi fii ba élection yi di jàll ba parce que mois de septembre normalement dañuy commencer exécuter waaw budget bi